dog bi moom day def bu tuddee benn caay-caay xamal la ko ba nga xam ko mu wax la la nga xam ne itam moom nga koy faje bu nekkee ci yow du wax nag caay-caay yépp waaye dana indi yi nga xam ne ñoo gën a siiw gën a bari mu ne kon naa la wax yenn caay-caay yi te wax ko benn benn bu ma ci wax rek sësale ca saafara sa nga xam ne moo koy faj day njëkkee caay-caay bi nga xam ne moo ci yées moom nee na mooy rëy li tax nee na rëy mooy yées ci mboolem caay-caay yi mooy moom day day buddi gëm sànni ndax rëy ci boppam day cërub yàlla nga xam ne ku rëy rek day mel ne day yootu cërub yàlla day mel ne kon jëmmi gëm gaag pas-pas ba ci boppam ak yóotal gëm yóotaloon yàlla moom la rëy ga di yàq daga moom nag cosaanul diine muy gëm moom la yàq te ku bokkut ak moom moom bu amee itam jëf rek la yàq waaye lu yàq jëmmi pas-pas loolu moo tax rëy yées ci yëpp yëpp ku mel ne ngistal def te yàlla taxut wala naw jëf yooyu yëpp day yàq jëf rek waaye du yàq jëmmi pas-pas ci boppam nee nañu sax rëy dana tax du kooka tolloo ci di génn àdduna yàlla rekki gëmam mu faatuwaale ak kéefër kersa ci boppam day lu ñu tagga tagg ba wax ne kersa du indi lu may aw yiw waaye nag nay kersa goo xam ne diine ak pas-pas da ko lal loola mooy lépp lu yàlla bëggut mu rusu yàlla ba bañ koo fas bañ koo wax bañ koo jëf waaye nag kersa goo xam ne moom tabiyax yu la ko jub jikko la moom ci xeetu rëy la bokk moom nag nee nañu lu bare bari la ci takk-takk bi nag saa yoo xam ne kersa ga tax na koo bàyyi ndigal mbaa mu tax koo def lañu tere rek kersa googu ak rëy la saa yu kersa gi doxee digganteem ak def lu baax rek mbaa kersa ga tax koo def lu bon rek kersa googu kon ak rëy la waaye du kersa ga ñu tagg mel ne fu ñi mooy yàlla murus bañ caa bokk ca mooy yàlla ga ba tax mu bokk ca mooy yàlla ga loolu ak rëy la lu baax itam ni ki yëkkati kàddoom noddu wala yëkkati kàddoom tudd yàlla wala yëkkati kàddu waar mbooloo ma wax leen lay dëgg wala rus ci digle lu baax aaye lu bon mbaa am lu ëmp la ci mbirum diineem te rus koo laaj yooyu yëpp ak rëy lañ koy jàppee bokk na ci li nga xam ne xeetu rëy la xam ne lii mooy dëgg te nanguwoo koo wax mbaa ñu wax la dëgg ga nga gànt ko rëy dina tax dana xam lay dëgg te du ko nangoo wax mbaa bokk ñu wax ko dëgg ga mu gàntu du ko nangoo bokk na ci màndargam rëy xeeb kenn ci doomi aadama yi su xeebee kenn kenn ci ñu yàlla sàkk rek ak rëy daa nekk ci moom jëmmi rëy ci boppam mooy yëg boppam ba nga xamee ne dana ko tax a xeeb keneen mbaa am ku war a jox àq waaye rëy na ba du ko jox àq joojee mbaa mu war a sàmmoonteeg darajey kenn te rëy ba du ko jox daraje joojee nga xam nee nañu rëy moom bu fekkoon ne kenn képp la yàlla sàkk du mën a rëy ndax rëy balaa mën a am day jàpp ni moom ci boppam am na daraja keneen am na daraja te moom nag moo ëppale kooka daraja wala yiy jàpp ne mooy jëmmi rëy su xasee sax nag dana indi dégg-dégg te du ko nangu mbaa mu xam ko te rëy ko wax mbaa xeeb doomi aadama yi moo tax bi saxaaba yi waxee ku baax ka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko kenn ku ne ci ñun day day bëgg ay yéreem rafet ay dàllam rafet ndax loolu ci réy la bokk mu ne leen déedéet yàlla dadi ku rafet te bëgg lu rafet rëy kay mooy rëy lu dëgg ak xeeb nit ñi qaala allahu jamilun wa yuhibbul jamila walakin al kibra batarul xaqi wa xamsun naasi dëgg-dëgg rëy moom mooy nga jàpp ne am nga martaba keneen am na martaba waaye yaa ko ëppale martaba li koy faj nag mooy mu wër la ne nit ñi yàlla leen amal te ñu leen amale nenn rek la ñépp ñu ngi bàyyikoo ci aadama aadama yàlla nga ko sàkk woon ci tabax banu suuf sol ca goro wëlbatiku génne xawaa ci faarug aadama doomi aadama yi tàmbalee sosoo ci ñoom ñaar te tàmbalee ci toqinu man yu ba keroog ñuy sottiku doon nit ku mat yàlla génne leen ci biti ñu yuddu loolu ñëpp yam ci jaar-jaar yooyu li nga xam ne ci la ñuy gënante muy xam-xam ak jëf ji yiw tax lu nga mën cee xeeb kenn mbaa muy tax nga defee ne gën nga kenn ci ñu yàlla sàkk ndax ndegam sëg mujj xamoo ko waaw ñàkk xam sëg mujj am li rek mu am solo manees naa tàmbaleeg mbaax ak njub mu jële ak dëng manees naa njël doonu ak dëng mu jëleeg mbaax loolu moo tax ndegam xamul sëg mujj rek moom donte amoon nga xam-xam bu rafet ba amoon nga diine ju rafet bu mu tax nga defee ne gën nga kenn ndax xamagoo sa mucc ndax yàlla dafa am ñu bind ngir àjjana te ñooñu moom lu ñu mën di njël doonoo itam faaw ca mujj rek faaw ñu def leen yóbbu àjjana am ñu bind ngir safara ñoo xam ne lu yàgg-yàgg moom lu njël doonoo ak baax yi dutee ca mujj moom daañu def leen di yóbbu ca kër googee umpale nga umpale sa mujj rek war naa tax doo jàpp ne am na kenn koo féete kaw ci doomi aadama yi sunu boroom dafa tëkku ci biir alquran ñi nga xam ne ñoo rëy wax ne da leen di xañ xam dëgg gumbaal seeni xol ba duñu xam dëgg duñu ko topp sa asrifu xan ayaati allazina yatakabbaruuna fi l ardi bi xayri lxaq wa in yaraw kulla ayatin la yuminu biha wa in yaraw sabila rushdi laa yattaxiduuhu sabila wa in yaraw sabila alxayyi yattaxiduuhu sabila suñ boroom da leen di gumbaal ba dañuy bàyyi fee yoonu jub dem topp yoonu réer ak bam ne innahu laa yuhibbul mustakbirin am na fu addis bu wax ne yuxcharu almutakabbiruuna yowma alqiyaamati amsaal addar fi suwari rijaal yaxchaahum addullu min kulli makaan mu ne ñi nga xam ne ñoo rëy bu bis pencee bu leen yàlla dee pang dañuy am melo nit ba noppi nag mel na ay sangaleeñ nit ñi di leen nootee ko dëggaate toroxte di leen bàyyi ko fenn fu ne réy day mel na ne mooy bakkaar bi njëkk mooy yàlla ci asamaan ndax iblis ba ko yàlla digalee su jootal aadama mu rëy jàpp ne moom yàlla nga ko liggéeyee ci matière sawara te sawara moom daa leer aadama yàlla nga ko liggéeyee ci matière suuf te suuf daa lëndëm mu ne kon nag maa ko gën duma ko sujjootal topp réy ga mu réy rek loolee ca la ko yàlla alage muy jiitul mboolem ñiy dem sawara mu ñaan nag yàlla musal nu ci iblis ci boppam musal nu ci jëmmi réy itam doomi aadama bu seetloo boppam dëgg-dëgg du réy ndax ne njëlbeenam toq yi mu mbann yi la bu sobewoo sobewu nga xam ne fu mu taq ñu dindi ko ndax ne sobe la te gannaaw bu nekkee ci biiru yaayam ba judd itam li ci ëpp rek fu mu toll ay xayta mu ngi ci biir nga xam ne bu demee ba yàlla may ko tawfiix yi génne ko faaw mu raxas fu sobe si génne woon te du bëgg a jege loolee génn ci moom bu faatoo it nekk medd moo xam ne yàllaa ko suturaal rek ñu raxas ko suul ko bu dul woon nag sutura si yàlla soosu moo medd yi nga romb rek ci yoon yeeg àll yi ñoo yemoo kon rëy wutal nañ ko xeeti saafara yoo xam ne seen si ci xel lay dellu seen si ci yoon seen si ci aada saafara bi nga xam ne mooy dellu ci xel wax gañ waxoon ne doomi aadama bu nekk moroom ma ñoo yemoo képp li leen yàlla tëggee ñoo yemoo ne yàlla melal seeni jëmm mbir yi nga xam ne mooy tax nit a nekk nit ñoom ñëpp ñoo ci yemoo nga xam ne kon ci rek ni leen yàlla amale moom ñoom doomi aadama yëpp ñoo ci yem saafara rëy si nga xam ne mooy dellu ci seet yoon nag mooy li ñu waxoon ne yàlla dafa tëkk lool ci alquran ku rëy yonente bi tam tëkk lool ci addis ku rëy niñ ko weesoo woon léegi te it rëy nag yi nga xam ne moo ci soqikoo daa bare bare ba nga xam ne neexuñoo wàññi bokk na ca di farala mer wala ñu koy ŋàññ mbaa muy ŋàññ keneen rëy dana tax moom mi rëy ci boppam muy jëw keneen mbaa ñu koy jëw rëy dana taxa amuk coxor dana taxa añaan dana taxa def te yàlla taxut dana tax lu mu def ci lu baax di ko nettali ngir bëgg dara jaag wàccuwaay ak yu bare bare boole ca nag day indi coono coono bi di yem ci moom waaye kuy jëflanteeg moom sax faaw nga sonn ndax am na noo war a waxeeg moom ndax rëy ga nekk ca moom am na noo war a toogeeg moom boo ko doon ganale am na noo ko war a ganalee am foo ko war a dalal muy coono yu bare bare yu amul yemuwaay liy saafara rëy nag tey dellu ci wàllu aada te mooy ñetteelu saafara yi mooy li mujj wax nii ne nit ku ne bu seetloo njëlbeenam na mu tàmbalee di roqinu man yóbbu sobewoo sobewu gannaaw bu génnee ci biiru yaayam itam di ëmb ci biiram sobe muy xaytaak saw yoo xam ne su génnee ci moom rekk faaw mu aajo war a xas bu faatoo it nekk medd moo xam ne moom yàllaa koy suturaal rekk ñu gas ko suul yépp bu ko doomi aadama seetloo rekk daldi sori ak rëy mais cosaan li moom ñépp a ko bokkule muy aadam ndax aadama la yàlla tabaxe ci ban wàcceeg ruu mooy bëti ku génne soxnaam xawaa ci ak faaram nga xam ne ci faaruk aadama ci la yàlla génnee xawaa muy soxnaam bu fekkee ci sàlli lenn la kon kenn mënta gëne moroom ma ci kaw rekk cosaan ndax cosaan li moom lenn la kon ragal yàlla rek mooy li nga xam ne mooy teqale jaami yàlla yi ba tax suñu boroom ne inna akramakum xindallahi atqaakum hadis ba nee na bu àllaaxiraa dana am ko jéptaane ci ndigalul yàlla ne nit ñi man day damaa defoon askan ne askan wi moo gën a tedd te mooy ragal yàlla yéen ngeen bañ di tudd yeneeni askan di ko damoo naa man maay doomi diw man maay doomi diw tey nag askanu waaye masa yëkkati danaa ko daaneel yëkkati sama askan dong te mooy ragal yàlla ana ñu ragaloon yàlla dal leen di dugal àjjana ñoom ñi ragaloon yàlla mooy inna munaadiyan yunaadi fil axira ayuhan naasu inni jaaltu lakum nasaba fa qultu inna akramakum xindallahi atqaakum fa abaytum illa an taqulu فلان ابن فلان فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي أين المتقون فيدخلهم الجنة nee nañu daa am benn waay bu mas di damonteeg moroom ma naa ko maa la di ko wax naa ko maa la gën cosaanul ndey maa la gën cosaanul baay di wàññi naa ko maay doomi diw maay doomi diw ba wàññi juróom-ñaari maam yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juróom-ñaar ñi nga wàññi yépp di leen damoo ñoom ñépp ña nga sawara moo tax ñu bëgg nag koo gis rek am wet goo seet ba ne moo ma tane moo ma gën bu dee gone nga jàpp ne moom mooy gut yàlla ndax kenn tàmbali ko ko bindal bàkkaar yow mi mag nag nga jàpp ne bari nga ay moy te xamoo jéggal nañ la ko moom déet bu dee mag mu la ëppi at nga jàpp ni moom day moo la gën ndax jaamu na yàlla loo xam ne jaamuwoo ko ko bu dee boroom xam-xam nga ne ah kii de moom moo ma gën ndax yàlla may na ko loo xam ne man mayuma ko bu dee ku réer koo xam ne xamutit nga ne ah xam naa ne rekk moo ma gën ndax bu mooyee yàlla itam ci ñàkk xam la man nag mooy na man nag mooy naa yàlla ba tàyyi ci loo xam ne xam naa ko te maa ko tey boole ci ne xawma it lu ko yàllay mujjale ak man mi lu ma yàllay mujjale bu dee koo xam ne yéen a yemoo nag ci wet yépp itam ci zahir nga jàpp ne rek yow xamoo baatin te boo demee am na lu yàlla def ca moom te defu ko ci yow te xamoo it li ak mujjam ak lu di sag mucc